رب من أنكر باعترادي برأني الباغي من الأمراض وكب من أنكر باعترادي له سكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شربوا عذبي وللجنان خربوا حزت حياة لا ترى لغيري معجزة بانت لحسن خيري يجود للجواد بالجياد وصول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا إماتة ولا تنام شماتا أعطاني الباخي الكتاب الأعظم ولا أولى أخي كل من تعزم عني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسأل خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه دلي ما نفعا الأنفعين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 ينقاد مني السلام عن سرى له بآله وأفضل الملا رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير صلوات الأعلى سنت له أبكار أمداه لدى من جهل سأني وسف الخلدا xalbi safa bi kawni rabbi xilli xibbi wali jaala kusran xulli wajjahali xalaawata daarayni wa fi ma jaalani jaarayni nafaani fi ma madaa wa maxtafa wa kawnu li bi munaaya maxtafa nafaani bi ma badaa wa maxtafaa wa kawnuhu li bi munaaya maxtafaa faritu billaahi alkarimi wa rasuul wa xisbi wa xustu minhu xay rasuul ribim ti daaw man bi baaxi dafa asan tawajjaha ilayya fan dafa xakamani alxakimu wa huwa alxakamu wa minhu taatiini almunaa walxikamu yaquudu lilxabiiru walalimu maa duunuhu aluluumu wattaalimu nafa alxabiiru an fuaadi jahla sirtu bi li basi ilmin ahla bara'ani alalimu min dalaali وسرتم أخستا بلا إخلال براني العليم من دلالي فسرتم أخستا بلا إخلال محى الحكيم مع ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم ayatu munzilil kitaabi nuzuli wa innani anil azabi maazili isaa talawtu ayatan niltu muna min malikin malikin xat amana taslimu baaxin laa yazaalu akrama ala lasi li yuwaddi karama أبقى سلامي الذي لغدا بدل سيء بردا فانخدا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مد يدي لخير من خاد المنى لي بلا أذن وكل أمنا أظنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهية بأكبر الرضوان ساعة خيدي لغاد بالمختار ربي كلما طلبت مع الرداء مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عناء أو أذى أو كبدي من ظن أنه يكون أبدا يردي بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونعم مثلي كل خديم فروس الله والسهب ومن والاه ديق الذي ضيقني من العدا عليه تسليما مبيد من عداه لكل من ضيقني من قبله بسم الله السلام عليكم yéen mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Dialla ak ci turu jëwriñu tool bi Modou Mbaye mooy jëwriñu tool bi noonu nag nooy jëwriñu waañ wi fas yéene koo defar defar ba mu baax ndax teraanga ji mate na ko yëpp mate na ko bu dee nay mate na ko bu dee ceeb bi mate na ko bu dee diw gi mate na ko bu dee lépp tim li wàllu waañ wi lépp moom borom joxe na ko ba mu mat lu fiy des moom ci noonu la dese wante lépp matal na ko ngóob mi tim ñi nga xam ne ñoo bay tool bi tim matale nañ tool bi ndax ku xëy bayu tool ñetti weer ñu di góob ba egg ci heure yu tisbaar kenn ku ne xaar la nga bay matale nañ ko borom tool bi nag di joxe tool bi moom nun dañ koy doolee ñaanal muy Serigne Cheikh Thialla Mbaye yàlla guddalu fanam wéral ko lafal ko cat moo ko njabootam ci barke xaadim rasool nun nag nu yàgg a waañ wi nun nu yàgg a taxaw waañ wi ci barke Serigne tuuba lu man ren bu déwee ne yàlla man fukkam ci barke xaadim rasool ndax lu mu def yéene na ko ñëpp nii mu ko wootee li tax mu woote ko bëgg kenn ku ne jariñu ci moo tax mu di ko woote njariñ lool nag yàlla na baawaan ba yegg ci ñëpp ca ma bële ci ci barke Serigne Touba nun nag wax ji daa bëriwut ca wax ji mënunoo wax wante nag a ah, bëggoon na wax lopp lii wante nag suñu wax moo des. Ah, man la El Hadj Thion Dieng dëkk Ñaaxeen ñëw ci xiiwal gii nga xam ni at mu jot Serigne Cheikh Thialla mbay defal nu ko muy lan liggéeyal sëriñ Touba muy lan liggéeyal maam Cheikh Anta muy lan ñaq jëriñu. tool bii 6 heures ba nu jullee fajar ba fii mi ne ba léegi ñu nodd tisbaar mbooloo mi fi ne ay téeméeri téeméeri doomu aadama ñu waaye mënuñu ci dara ngóob mi tubaar fa kàlla mbooloo mi bari na waaye tool bi tënaa yegg ca bu yeggee nii la koy bojjee yóbbu ca kër sëñ ba jox ko ko aw fépp du ci dugg këram li ci des mu def ko lii asaka yi mu jox koy bokkam ak néew ju doole yi mu dëkkal kon nun ñii dëkk Kajoor ak Mbaakol euh, lu nu defal Cheikh Thialé ci liggéeyal Serigne Touba liggéeyal maam Cheikh Anta dañu koy jéem a fay waaye lebalu nu ko dara ay gor lanu nag bu nu mënta lebleet mën na noo fay bor di gërëm bu baax a baax a baax a baax Cheikh Thialé Mbaye di ñaan yàlla yàlla xëcc fanam wi mu yàgg noo woo ci liggéey bi nu ñëw yendoo liggéey ñaq tooy xëpp bu ngoonee ñu yiwinu ñaanal nu ba déwénati yàlla nañu fi yàgg ñëw yàgg ko yàgg ko fee fekk Cheikh Thialla ku di ku dëkk ci tund Mbakol ak Kajoor ameel nga ko njukkal lu ko waay ñaqal da koy leba da koy fay waaye lebaloo ko dara lu mu am na ko Mbakol ak Kajoor lu mu am bokk na ko Mbakol ak Kajoor jàkka yi moo ci man jumaa yi moo ci man ngénte yi moo ci mañ dëj yi moo ci man ak bisi cant yeeg bisi màggal yeeg yooyu gàmmo yi yàlla na ko yàlla bàyyi ci sunu kanam ca wéral ay cëram barke Seydina Muhammad barke Cheikh Al Khadim di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ndax lu am rek defal nu ko nun mënuñu koo fay ndax lu am rek defal nu ko waa dëkk bi ak ak ak ak réew mépp sax la Baye Cheikh Mbaye di defal noo koy ñaanal gudd fan gu ànd wér waaw wàllu waañ wi nag gis nga taxawaay bi moom nun lu fi def rek xeeb nan ko ndax mënuñu koo fay wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa a baax a baax ci Longhor kër sëriñ Cheikh Thialla Mbaye mi nga xam ne ku ko xam xam ko ci jëfe ndigal ku ko xam xam ko ci yàgg liggéey sëriñ Touba waaye nag dan naan ki tax nu tax moo taamu ci ñun nu texe ba tax. mu àndalenu ak sëriñ Cheikh mbay mii nga xam ne li ko war ak li war jullit ñi rek ci lay woote ndax suñu boroom kat dañoo wax ne binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamuñu nee na bindu nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko sëriñ Cheikh nag ci jaamu yàlla ci la ne ci liggéey ci la ne loolu yi tamit rek ci la woo mboolem ku fi teew tey barab bii nga xam ne nag fi lañ nekk muy Longhor di barab boo xam ne Serigne Touba ci boppam da koo taamul boppam sëriñ Touba ci boppam it da leen a liggéeyloo bari na fu waay di ne di liggéeyal Serigne Touba waaye fii ne daa bari ji daa bokk ci barab yi nga xam ne ñoom Serigne Touba ci boppam moo leen taamu di leen liggéeyloo ba mu dooree ba tey mu ànd ñoom liggéey bi sëriñ Cheikh it bi mu ñëwee mboolem mag ñi nga xam ne ñoom la fi doon te wuuti leen fi doon seen jëwrin yaatal na liggéeyam ba faw xa liggéey bi nga xam ne moom la mboolem ku dëkk loo ngor mos a liggéey kon sëriñ si yaat ñu ngi koy ñaanal yal na aw fanam yok waaye nag li wala di wax ne doomi ñay bu ko ñaanal mu rëy ñaanal ko rek mu gudd fan kon sëriñ si yax nan ko ñaanal mu gudd fan ndax xam nan ne liggéeyal sëriñ Touba rek moo yitteem liggéeyal sëriñ Touba rek it mooy yéeneem yéene yi mboolem jullit yi ak dëkkandoo yi njiw woowu nga xam ne dana ko amee ci liggéeyal sëriñ Touba moo tax mu woono fi moo tax nu dajalem fi moo tax itam mu ànd bi war ngaa sant yàlla bu baax képp ku fi teew war ngaa sant Serigne Touba ndax fii kat lépp luñ fi liggéeyale Serigne Touba rek la koy jébbal. ku ko rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi maa ngi yëkkati kàddu ci ndigalul Serigne Djili mu Serigne Modou Rokhaya mu ànd ak sëñ Mame Balla ak Serigne Cheikh Gaynde di njabootug Serigne Modou Rokhaya ñu fekk fi Serigne seex mbake di seen waajur nekk fii ci Muslaaj Serigne Jili nee na dafa yëkkati woon ay kàddu ci ndigalul kilifaam di sëriñam di sëriñ Cheikh Anta mu Serigne Modou ya mu jëmoon ci tool bii nga xam ne toolub cosaan la bu ñuy bayal Serigne Modou Rokhaya fii ci Longhor Mbay te sëriñ Seex Caala di ko bay at mu jot di ko jébbal sëriñ bi te loolu nekk cosaan ci yoon wi ndax ku ne xam na ne yoonu murit cosaan li mooy bay jox sëriñ Tuubaa bi sëriñ bi demee ci géej gi digaloon na sëriñ Mandumbe ak maam Cheikh ma Fall ak ña mel na ñoom na leen dem leen liggéeyi saa yu liggéey bi sontoo na ngeen ko jox ko Thierno Ibrahim mu di ci dundal njaboot gi looloo taxoon Serigne Issa Diène sañc dëkk yim sañc moo taxoon Serigne Mandoumbe dem kër Magay Ndaw luñ fa masaa liggéey Serigne bi lañ ko daan jox kon bay jax Serigne bi cosaan la ci yoon wi fàttaliku ngeen bu yàggul rek tool bi nga xam ne. moom la sëriñ Modou Rokhaya bayoon bay mu nangu ma te jébbal ko sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke waaye xam ngeen ne it sëriñ Cheikh Anta mii mbooleem lum mas di bay dongo yi koy bay da leen di wax ne li ngeen di bay ak li may dajale mooy doon fondation addiye ji ni yët sëriñ Touba kon sëriñ Cheikh Thialla moom it bu dee bay ci tund wii te saa yu bayee ba mbay mi àgg du ko mos njaboot gi ko doon bay duñ ci fàq mbool mu nangu ko wan ginnaaw jox ko Serigne Touba li yàlla di wax ci alxuraan di wax ne sab'a sanaabila fii kulli sumbalatin mu at habbatin juróom-ñaari fepp nga def ci suuf yàlla nee na ma fay la ci fepp mu ne ma def ko téeméeri fepp ci pay gi gën a néew ku ne xam ne ne guubu dugub la ca nekk mat na junniy fepp te wenn fepp képp nga defoon ci suuf ginnaaw benn fepp nga ci defoon nag yàlla fay la fepp wu ne téeméeri fepp yàlla moo moo mën a fay boo fabaatee pepp yooyu nag jox ko Serigne Touba pay ga day gën a dolliku waaye ku ne xam ne ne lii dugub ni mu ak ni mu seere fi mu toll nga xam ne boo ko doon jaay danga nga naan ay million moo nekk nii nga ne fas naa yéene duma ko mos danaa ko jox sëriñ Touba bis buñ demee baag ca penc ma nga xam ne kenn ku ci nekk xiif foofa la amee njariñ mar naan foofa la amee njariñ ku daan faj xiifi jullit yi bu ñu àggee foofa sun borom mooy faj sab xiif te kenn naa table wu ne lam bayoon daaw jox ko sëriñ bi ba barki démb rek moo du sekk mi yor magasin bi xam na ne dugub àgg na kilo téeméer ak ñaar fukk te am nañu ko seen loxo jotul seen ginnaaw waaye sareet yi day def rootum guddi sëriñ seex di ko sarse di ko dugal ci këri këri kilifa yi ak di ko dugal ci këri taalibe yi te loola dara waralu ko lu weesu longoor gii lañ ko béye woon kon waa longoor ñi ngi dundal mbooloo mu bari moo xam ne xamuñu ne longoora leen di dundal waa longoor it xamul ne ñoom ñoo leen di dundal loolu nag mooy def dëgg dëgg ca yàlla tax ñu di ko def kon moo du mbay yow mi nga xam ne yaay jëwriñu tool bi Serigne Jili nee na cant gi ci yow la ko Serigne Cheikh waxoon na bu ñëwee na tàmbalee ci yow yaag ñi nga àndaloon di bay tool bi ndax nee na ba ñuy ruuj yëgalu leen ko kenn ba ñuy faru yëgalu leen ko kenn ba ngeen koy bay yëgalu leen ko kenn bi mu àggee mënoon ngeen koo góob te du ngeen ko yëgle waaye ñi fi yendoo góob tey bàyyi seeni soxla xam nañ ne na saxaaba ya defoon moom rek lañ def jox seenu ñaq yàlla ñaq wii nag kenn ku ko mën a fay ku dut yàlla amut as gor su bàyyi mm, ad mbiram bàyyi këram bàyyi léppam dem ci tool boo xam ne bu noppee du ca jariñoo wenn fepp mu yendu faa góob te bayu ko te yàlla dong tax mu di ko góob ñaq woowu Serigne Touba rek moo ko mën a fay kon nag Serigne bi nee na sahaaba yi kat dañ leen waxoon ne inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwaluhum bi an lahumul janna jaayante leen ak seen boroom jox ko seen alal ak seen bakkan bu ngeen faatoo mu tabbil leen àjjana na sahaaba ya defoon jaayante nag moom la taalibe yi Serigne Touba def jaayante jox seen bopp Serigne bi nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani lakka wa di hatun abad sëñ Tuba nee na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale naa ci yow sama bakkan sama diine sama njaboot sama sama taalibe sama dëkku bopp bi ak sama bakkanu bopp bi def naa ko denkaan ci yow ngir nga sàmmal ma ko ma mën a liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo nee nag adda xaltu nafsi wa jamiha ahli fii jay bi afdalil warasil fadli fob naa sama bakkanu bopp bi ak bakkanu ku ma yaakaar tabbal ci biir jibay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi lu tabb ci jibam noppi naa ruur kon ñun ci ndénkaan lañ nekk ndénkaan loo xam ne Serigne Touba moo ko dénk yonent bi yonent bi war ko jëbalaat boromam subhanahu wa taala loolu moo tax ñu mën lii kon Serigne Jili nee na yow sëñ Modou Mbaye yaa ngi ñi nga àndaloon di bay nee na day su ngeen xamoon tuyaaba ji ngeen di jëlee ci seen mbay mii li des seenug dund lépp dangeen koy jaayante di ko bay di ko jébbal sëñ Cheikh mbay mu di ko mu leen koy joxal Serigne Touba kon nee na yàlla leen yàlla gàttandoo ak ndimbalam ak taw fee xam ni fepp yi toll yàlla na ko yàlla def seeni i ak seeni i tuyaa ba mu toll noonu bi ci des bi wax ne day sant nag Serigne Cheikh ci boppam ndax nee na Serigne Cheikh Anta daf koo wax ne ko Serigne Cheikh moomu du sama taalibe taalibe bi sëñ Modou Rokhaya maa ngi moom ñoo bokk kun yaakaar. adduna bokkul yaakaar àllaaxira waaye maa moom it ñoo bokk way jur ni ma sëñ Modou Rokhaya jure noonu la ko juree wala mu gën mu koo jege sëñ Modou Rokhaya it moo na boole ci pas-pas maa ngi moom boole sama loxo ak loxoom kon dañoo war a ànd di liggéeyal Serigne Touba waaye nee na liggéeyu Serigne Touba bii muy liggéey de mi ngi seereel ñëpp ne moom mii de xanaa jëmmam ji ak njabootam gi waaye bari ñu yor mbooloo mu dul jeex. te bu nu jëfee bu sëñ Cheikh mbay jëfee da naan xanaa kii daa yor la ëpp tool taalibe yu ëpp ñu la koo ko yor te kenn du xam nag ne moo ko def nee na buy ñëw la muy def ci ay enveloppe am kenn du xam nu mu toll waaye bu dikkee dana fexe ba jébbal ko sëriñ bi te kenn du xam ne moo ko jébbale du ca bind aw turam du bëgg ku ko gis du bëgg ku ko santit waaye nag sëriñ bi nee na lépp looy def te yàlla tax sa loxom di joor bi ko yor boo mën fexe ba bopp càmmoñ bi bu mu ko yëg bu ko yëg seeral ko yàlla rek kon nee na sa ci ci ci Daaru Salaam sa ci sëñ Modou Rokhaya nee na mi ngi lay seereel ne wóor na ko ne amoon nga ngërëmul sëñ Modou Rokhaya waaye leer na ko naññ ne ngërëmam moom am nga ko kon daa fekkoon ñu duy saako bi nee na moom fecc li képp ko ci fek wala boros saako bi lam wax sëriñ jiili nag te sëriñ jiili jottaliwaat ko da ko wax ne wax na ko fi ay at ne la la sëriñ Tuubaa ne waxoon ne rajaahum muhaqqaqun wa muliku fii abadin ma la yaraahu maliku nee na yaakaar ju tas xamut buntu kër sëñ Tuubaa waaye nee na wóor na ko ne moom yaakaar du tase longoor moom nee na jenn yaakaar ak fu nit mën a yaakaare bu jëm see ci yow nee na bu sam xel ne yar ci sëñ mu roqee nee na baya boo nga dogu loo dogul yàlla dana la fekk ca loola ndax wóor ko ne sëñ mu roqee moom du la gàcceel kon man mi ngi delluwaat xam le ne yaakaar jum ab taalibe mën a am ak fu ko ab julit mën a amee su jëm see ci yow nee na bul ci am benn tiitaange ndax loo ko tifli rek sëñ sëñ Tuubaa dana la ca fekk kon mi ngi koy gën a santaat bu baax a baax nee nag di ñaan yàlla mu sàmmal la boppam may la fan wu gudd lool dolli ci ak wér ndax kat léegi rek ñu ngi koy nettali day am loo xam ne jëfi yàlla bu ko yàlla nangoo nag nangoo ko ca penc ma nga ko def ma nga ko lebele woon yàlla waxaat ko du wàññi dara suuf sii mu nekk bay na ba desal ak mbooy mbooy yi des ca kenn bayu ko waaye tool na jamono joo xam ne baayam da daan doglu ay ay tool te kenn ëpp ko woon ay tool waaye aw ay am na ci penc mii te mag ñëpp fekke ko mu ne ndax su ma joxee sama suuf aw ay ay wi tas ne ko boo joxee sa suuf sa suuf ay wi yam fi mu nangoo dagg ay toolam joxe ko ngir jëmi yàlla ngir lan ngir sàmm jàmmi Longoor tey jii suuf sa ñëpp bàyyee nañ ko nga di ko bay nee na loolu liggéeyub Abdou Khoulé yàlla ko yàlla fay ci yéen ci barke Cheikhul Khadim li ci des mooy sëñ Cheikh ak waa tund wi ñëw sëñ Daaru Baaxuma ngi nii toog. sëñ Moussa Thiam a ngi nii toog sëñ Cheikh Ndiaye a ngi ne ñëw ñëwal ñëwal sëñ Ablaye Ndiaye ngooy xem waa Daaru Marnaan a ngi nii waa ndinde ngi nii toog waa Thiameen a ngi nii toog waa Daaru Marnaan waa Daaru Salaam ñëpp ñi nga xam ne sëriñ bi woowoon na leen sëriñ Laay Jeng muslaaj ak bokk yëpp ndiireen ak dëkk yu ko wër bëngët sëriñ bi nee na yéen ñëpp kat àndandoo ngeen ñëw daje ci tool bii waaye nag nee na tool bii ngeen daje war na leen de ndax la tax war na leen mooy tool bii dañ ko daan béy ci dëkk yooyu yëpp ndiireen da ko daan am ngëtt da ko daan am muslaaj da ko daan am càqame da ko daan am loo loole lépp nag nu jamono soppi ko tax na tool yooyu delluwaat doon ay daayira kon bu leen sëñ Cheikh Mbaye defalee fii tool boo xam ne ña daan daje ca tool booba wala seeni baay daan fa daje di ko bay mën nañoo dajewaat ci benn tool di ko góob nee na yéen war ngeen a sant yàlla ndax tool bii kat dekkalaat na tund wi kon nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla nag nii ko sëñ Cheikh ma ne jekkoo ko ni di ko ni defee yàlla na ko yàlla rogalaat ci yéen ba ngeen man koo def ci barke Cheikhul Khadim nee na mi ngi ñaan képp koo xam ne ñàq nga fi tey sa ñàq woowu yàlla na far say bakkaar ni ndox di fare ab tilim yàlla ko sa ñàq woowu fare say bakkaar te dolli seen i xiwal dolli seen teraanga dolli seen wërsëg ba kenn ku ne la mu yéenee liggéeyal sëriñ bi mu liggéey ko sëriñ bi nee na moom dafa jaayante ak sëriñ bi te du dellu ginnaaw ndax nee na bi mu ñëwee fekkut sëñ Modou Rokhaya bàyyee ko ay bâtiment fekkut mu bàyyee ko garage bu defi oto fekkut mu bàyyee ko ay tool yu muy bayee ab gopp la ko bàyyeel mooy addiyee ju jëm ci sëriñ Touba loolee nag moom la fas yéene def muy jomam nee na day fas na yéene duñ tudd sëriñ Seex Anta muy seenub sëriñ di ko tudd ci kanam benn sëriñ ngeen di am kersa ndax fas na yéene kenn du ko man ci yoonu sëriñ Touba wi barki démb bi ñu màggalee ba noppi dafa toog Touba ba am fa fukki fan taa ñibbi biñ ko waxee dafa wax ne màggal gi ñiy màggal si sëñ Touba lañ yaakaar ndax ku leen mën a fay ku dul sëñ Touba amut sëñ tubaa it moo moom màggal gi moo moom taalibe yi moo leen booleeg ñun taalibe buy ñëw bu lay jox addiye addiye sëñ Touba la lay jox kon yow mi ngi koy jox moomoo ko damaa yaakaar na ne ku moom sa bis moom sa dëkk moom sey taalibe boole laak ñoom ñu jox la addiya nga dajale ko ba noppi dem ñibbi ca gisoo boroom ak ngoro di la baa muy nuru ak càcc man nag sëñu ma loolu dama koy dajale ba taalibe yi ñibbi ba sëriñ Tuubaa feex di sëñ muntaxaa ma dem ba ci moom ma ne ko la ma taali la nga yabaloon taalibe yi ñu andi ko fa man mi ngi nii loolu barki dem rek la ko def ba mu àggee sëñ Muntaxa daf ko wane ne màggal gi neex na lool donga ya nga yabaloon ñëw nañ ca kër ga la nga leen waxoon jox nañ ma ko ba ma ko dajalee ba noppi mi ngi nii sëñ Muntaxa dafa na ko yaa gore waaye lii ñëpp la war ndax alal ji sëñ Tuubaa ko moom kon nag ko sëñu ma cee jëf benn dërëm te tegu ma ko ca loxo foofee la ko sëñ Muntaxa waxee na ko kon nag ngërëm li ab soññe lay doon soññe bi mooy bâtiment bii nga xam ne sëñ moo Modou Rokhayal moo la ko sëñ Abdoulaye digaloon mu defal ko fi sëñ Tuubaa ku fi nekkal sëñ Tuubaa mu doon sa kër bâtiment boobu damaa bëgg nga dolliwaat ci yeneen bâtiment sëriñ Seex bis boobu moom la woote suba rek waaye biñ daataa ko nee na mbooleem luy ciment baa muy fer moom jënd naa ko ndax damay bañ taalibe yi jéetuma ca ciment ba ca war a dem bépp jënd naa ko fer ba ca war a dem bépp jënd naa ko kon la des mooy tàmbali liggéey ba waat fa ay néeg dolliwaat fa ay saal dolliwaat fa ay ay ay wanag ba noppi nag moom yamu ca nee na danaa teg am néeg ci kaw wutal ascenseur yi teg ko fa bu sëñ Muntaxa sonnatee bés bouton bouton bu yóbbu ko ci kaw mu toog ci néeg ba ndax loolu la sëñ Tuubaa yeyoo waaw mooy sëriñ Seex Anta kon ñun war nañoo sant yàlla bu baax a baax woote xel 1990 la Serigne Saliou joxoon Serigne Modou Rokhaya sasu Xelkom nee na ñun nag waa Daaru Salaam di njabootuk sëñ Modou Rokhaya war nañoo xool luñ defal sëñ tubaab ba sëñ Touba belal ñu loxo ndax 1990 ba 2022 Serigne Saliou woote na Xelkom at mu jot woote na Daaru Salaam mësuñu ko manqué me naat bi Serigne Saliou demee daa doonoon tool bu yoonu murit wépp bokk. waaye Serigne Modou Rokhaya de moom di waa Daaru Salaam seenu sas daggut ba sëñ Modou sëñ Saliou wàccee 2007 ba xel Xelkom juñ fi woote sëñ Modou Rokhaya wuy ji na kon moom képp moo mën a tàllal tàllal loxoom wax ne 1990 ba xel koom juñ woote njabootu sëñ Modou Rokhaya ngi ci biir Xelkom jooja mosuñu ko manqué benn yoon nee na nag liggéey boobu seriñ Cheikh dafaa yónnee waat démb wan ko ne ko tool yi Daaru Salaam noppi na te yaa waxoon sëñ Saliou ne ko Daaru Salaam bu manqué ti dugub kon damaa bëgg bu ñu àggee ci le douze la treize damaa bëgg ñëpp demaat Xelkom góobali sëriñ Cheikh Saliou tooli Daaru Salaam kon murit yëpp ñu xam ne suba dañoo war a teg xeeru liggéey sëñ Tuubaa ba waaye la treize dañoo war a dem koom tey jii le trente ñoo ngi yendu Longhor démb di le trente tey le premier ñu ngi yendu Longhor kon noonu nañ xam ne duñ wàcc duñ noppalu. murit benn yoon la war a wàcce te bis bu demee foofee mu wàcce dana xam ne loo defoon ci àdduna lu dul liggéeyal sëñ tubaa liggéeyal sëñ Tuubaa ko gën ndax sëñ Tuubaa mas naa dajale mag ñi na leen ndax xam ngeen bitim réew mag ñi ne ko mbake boo ñu ko dimbalee ñu jël mu ne bitim réew moo fii ñu nekk di àdduna réew ma mooy àllaaxira daal di wax ne bitim réew nag nangu na yóbbante ci réew ma waaye nangu wut yóbbaale kon rik waaye na ngeen góorlu ba li ngeen am ngeen yóbbante ko ci réew ma ba bu ngeen ñëbbee fekk fa dara waaye boo nee ci réew mi loo am lekk ko fi loo am tabaxe ko fi loo am jënd ko fi oto ndax boo demoon Italie di fa tabax ay kër di fa jënd ay oto di takk ay soxna bis boo retraité ba ñibbi si Sénégal kër ya lum lay jariñ dara la la dul jariñ loolu mooy li nga am nga yemale ko àdduna ba faatu dikk nga dem yowmal am fekkoo fa dara loolu yàlla na ci yàlla musal moo tax sëriñ bi ne li ngeen am yóbbante leen ko yowmal xiyaam ba bu ngeen demee ci bàmmeel yi fekk la ngeen doon jox sëñ Tuubaa mu dencal leen ko ñun nag kon sunug dund sunug faatu sunug yëngutu sunug dal lépp teg nañ ko ci loxo loxoy sëriñ Modou Rokhaya moom mi nga xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko tax a jóg sëriñ ji li nee na sant na bu baax a baax li ko sëriñ Seex waxoon ci ay cant xajut ci jataay bi waaye xam ngeen ne dugub ji ay caaxaan bayu ko de borom sonn na ci de na ca mbay ma waaye def na ci lu ne ñàkk na ci alal mu soog a nii waaye nii mu ko gisee nii ngeen gise ko yéen ak moom a ciy yem wala mën naa am ngeen tane ko ci. ndax bu ko fi machine bi fekkee bojj ko ba mu def ko ci saako du ko laalaat yónnee na ko Serigne Cheikh te du ko yàqal addiyaam du ko yàqal ab siyaareem taalibi nag kon nii la war a mel Serigne Touba nee na lu nit dof dof dof du ma la nax waaye nit mënut a yeewu ba nax ma Serigne Touba loolu ko waxoon de lu nit dof dof duma ko nax waaye kenn mënut a yeewu nag. ba nax ma man Serigne Touba kon nuñ nan góorgóorlu xam ne Serigne Touba mënee su koo nax mënee su koo jommal nañ jaayanteeg moom te li ñu waxanteeg moom di dëgg ab taalibe bu waxanteeg ko sëriñam tamit dëgg na ko wóor na lépp lu mu amati bénéfice la ci moom waaye lépp Serigne Touba ko moom ndax jébbal naa la sama bopp adduna ak alaxira lañ waxoon kon nag liggéeyal jox Serigne bee fi ne Serigne Cheikh sëñ bi nee na sant na la de sant na dongo yi ko doon bay nee na wóor na ko ne it Serigne dana faj seen i ndax sëñ Tuubaa laa doon liggéeyal ba samay moroom raw ma nee na bët du ko gis nopp du ko dégg loolu sëñ Ablaye ko waxoon. dama doon liggéeyal sëriñ Tuubaa ba samay moroom raw ma nee na bët du ko gis nopp du ko dégg liggéeyal sëñ Tuubaa nag daa neex ba noppi jafe ndax ki ci nekkut mënee su ko koo wax ba mu xam ko waaye ki tàmm lu liggéey jox ko sëñ Tuubaa la muy yëgal boppam wóor na ko ne moo gën liggéey lekk la muy liggéeyal boppam man am naa ci mel ne misaal mu gàtt moo mën a joxe. tabaski dafa jot sama wayjur am menn tabaski na ma ñu ne ginnaaw suba la suba la tabaski mu ne ma menn xara fanaan ci kër gi demal jël ko yëtal ma sëñ Modou Rokhaya ma jël xar mi yët sëñ Modou Rokhaya ma nopp moom moo ànd ak sëñ Gédé ma ngay jullee ji dëkk bu ñuy wax ngooj bàyyi ma ci kër gi te suba la tabaski te jant sona sama wayjur na ma di magi sëñ bii sabaay daa joxe xar ma ma ko joxe na xar ma mu ne lu mu fi bàyyi ma ne ko ah xanaa sëñ bi ndax nee na maa ngi dem te boobu man mënu gu maa moom xar jéemu ma ci dara ma ne naa tëdd rek bu fajaree am na sama mag ju nekk Touba ma dem seeti ko baa xam danaa fa mën a moom xar bi ma lee fajar rek ma sol sama mbubb bi may tolloog raay bi laa seen ab Baay Faal ma nga takk ndig yor xar moo xam ne mën naa fukki ci xar moo ma ma di ko romb mu ne ma booy taxawal xam nga ku ñuy wax Baye Cheikh Sylla ma ne ko waaw mu ne ma ana këram ma ne ko nañ dem la ko bi ñu agsee fekk ko fi mu ne ma mooy fii nga dëkk ma ne ko man fi laa dëkk mu ne ma sëñ Cheikh Fall Baye góor moo ko joxoon tabaski mii kon bu dikkee nga jox ko ko xoolal ni sëñ Touba di fayee kon sëriñ bi bul assité boo koy lebal ndax moom pay gi daa taxaw buy dal muy dal la tudd kon nag yow sëñ Modou Mbaye yaag ñi nga àndaloon na seenum xel dal yéen dongo yi ko góob na seenum xel dal ndax bi ngeen ko yendoo góob ba mu àgg yéen ak ña ko tàmbali woon bay yéen a yem tuyaaba ji yéen a yem bokk yéen tuyaaba ji kon nag sëriñ ji li nee na ñaan yàlla ba gub tey bii kum tiim ci Longhor yàlla sa aajo yëpp faju ci barke Cheikhul Khadim di ñaanaa nit yàlla nañ ko fekkee waat déwén te kenn bañ a manqué te buñ ko fekkee déwén kat na jaag bi ëpp lii na mbooloo mi ëpp lii waaye na xiwal yi ëpp lii loolu sëñ bi yaa koy ñaan yàlla na leen ko yàlla defal kon mi ngi sant ñëpp di leen gërëm waa tund wii nag di tund Longhor di bokki sëriñ Cheikh sëñ Moussa doon na ma dey ak cant waaye loolu lépp ci cantuk sëriñ bi rek la tàbbi ndax ku fi ñëw rek sëñ la fi ñëwal te ñoom ñi ñëw ñëpp sëñ Cheikh woote wut sëñ Cheikh Anta moo woote moom ba mbay mi àggee daa yebal sëñ Moussa mii mu ñëw fekk sëñ bi ca Touba na ko sëñ Cheikh nee na tool sëñ Modou Rokhaya ba noppi na mu woo sëñ Jili man mii la yónni na ma wool ma sëriñ Jili mu woo ko mu na ko génnal wax ak sëriñ Ndiaye Ngoye Xeem te woo sëñ Modou tin te woo seex si na leen nañ waaj ak sëñ Darou Bakhoum te dem góobi tool ya yaakaar naa ne màggal ga ca lañ ko daje. waxtaane ko kon sëriñ Cheikh woote wutoon sëñ Touba moo woote woon sëñ Cheikh Anta mi ko woote it wenn fépp cere du ko dugg ci biiram foofee la koy dajale di ko ko joxal njabootug sëñ tubaa gi benn par benn di ko jox magi taalibe yi liggéeyal sëñ Touba ba am ngërëmam benn par benn seen aajo di faju te du ngeen ko yëg ñi ko doon góob seen aajo di faju te duñ ko yëg kon loolu daa war a leer kon mbooleem ñu bàyyi koo ci tund Longoor muy longoor yi ko wër yëpp sëriñ Jili nee na ci turu sëñ Seex Anta ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla mu faj seene aajo yi àdduna ak joj alaxira wax ji daal mu gudd mu gàtt ak cant rek la woon sëñ Tuubaa nang nee na waq di xawaa i jël la si na daamoo fii xidmati yow yàlla na nga faj aajo yi ñaam aajo gone yi toog yëpp kenn ku ne am nga soxla waaye mënoo koo wax waaye sëñ Tuubaa xam na soxla moo tax mu ne wax di xawaa ijal la si na daamoo soxla yi gaa yi nekk ci seen xol yi te mënuñu ko wax fajal ma ko yow sans ndax ñoo may liggéeyal fii xidmat yi na fajoo ca liggéey bañ may liggéeyal soxla sa àdduna rek la doomu aadama am ak soxla sa alaxira soxla sa àdduna sëñ Tuubaa nee na liggéeyal maa koy faj soxla sa alaxira mu ne ina la si na saaroo fii xidmat yi gaa yee daw di njëkkante sama liggéey ba ñoom kat buñ fàttoo fa lahumu diyaaru wasal jannati nañ dëgg nañ du dëkk ci biir àjjana waaye buñ dëkk sax ca wet kon nit ki àdduna la am ak alaxira yaari soxla si ci am yëpp liggéey sëñ Tuubaa koy faj kon nag yendoo nañoo liggéeyal sëñ Tuubaa ba noppi am nañuy soxla bàyyee nañ seen bopp ak sëñ Tuubaa na répp lépp rafet njort ci xam ne buñ demee seen aajo dana faju barakatu Cheikhul Khadim barke sëñ Modou Rokhaya ñu ko doon wax ne waa Daaru Salaam bokkuñu woon ci liggéey Serigne Saliou moo ko waxal boppam dañoo woo ban ñëw mu ne man de lii ma leen di def loo xam naa ne sax sëriñ bi daawu leen ko sant muy yebal ci ay tool yéen sëñ bi da am aajo rek ne demal na seex na faj aajo sàngam maam seexanta làmb poosam faj faj aajo jooja kon nit ñi ñun ci poos lañ la sëñ tubaa daan faje suñu aajo poos ñun ñëpp xam nañ ne poos lañ ma ne sëñ Saaliw nag ne waaye wax ne damaa am lu ma def xel koom te tuyaaba ja mënu ma koo jox ku demut xel koom te ma yéene ko waa Daaru Salaam moo tax ma yebal leen xel koom loolu moo indi wax ja kon demu xam ko sëñ Saliou noonu na bu ma bu ma wóoroon na murid yëpp dem nañ xel koom ma bàyyee dem xel koom kon daa am leneen lu nekk dem xel koom loolu moo tax ñu am fab cër Daaru Salaam gii ñuy góobi sëñ Saliou da koo sant waa Daaru Salaam boole Umul Xuraa ak Tayba Daaru Rahman Daaru Manaan Daaru Salaam euh, Daaru Euh, ak Usnul Maab muy juróom-ñaari tool mu ne waa Daaru Salaam nañ ko góob ñu góob juróom-benn tool ya mu des juróom-ñaareel ba muy Daaru Salaam bañ demee jëwriñ ja tudd Njóogu Fay ne Daaru moom lu ngeen di góob amu fi ndax daa sës ci forêt bi gunóor yi dañuy gaaw a dugg ci tool bi naan nañ ko sëriñ Cheikh man mii la àndal taal oto wuti sëñ Saliou biñ dikkee gee lañ fekk sëñ Saliou xel euh, fee euh, Touba sëñ Cheikh nuyoo ak moom mu ne ko tool ya daa àgg mu ne ko àgg gut daa am lu fa xew tam ñëw ma di la ko wax si sëñ Saliou ne ko lu fa xew mu ne ko tool yëpp dañoo am dugub Darou Salaam amul dugub te xiiwal Darou Salaam la njëkk am bu Touba mën ay am pepp Darou Wahab man koo am Darou Musti man koo am Darou Manaan man koo am na ko Darou Salaam njëkk am ndax foofu la ceeb njëkk am damaa bëgg nag xaw ma fuy manqué te ci tool yi xel ko waaye Darou Salaam moom nay am dugub. sëñ Saliou ko salaaw mosuma koo xam de waaye duutu manqué boobaak léegi manqué tuñ dugub kon yaakaar naa ne loolu nga doon wax sëñ bi loolu leer na xel ko am leneen la kon ñu maase tàllal loxo yi rek. السيئات وترفعنا بنا الدرجات والتقال آمين والحياة آمين وكم لنا كل من هو نقص لنا كل من اختار يا الله ورد لنا كل ذي صاحب وبيهر ويشتر كل سنة تابل لنا آمين يا رب آمين والتف بنا وخلنا وكل آمين يا رب آمين بركة هذه المسابقة آمين آمين